booba te yàgg na ñu ngi ci amoon ité parce que ñun pose na woon candidature boobu Abdou Karim Fofana moo fi nekkoon mais maanaam yeexaayu administration moo tax mbir mi demul noonu bon gis ngeen place bi ni mu mel bin ko defaree li directeur bi wax def nañ ci ay millions mais nag aussi léthargie état moo tax booba tey kenn exploité wu ko mu yàqu fu dara nekkul gis nga li muy mel boo fa demee léegi. ak biñ ko defaree biñ ko inauguré yàq-yàq yu bëri am na fa mu ñun nag dunni man nañ lépp dañuy jëm ay sénégalais lañu ñun expérience bi ñu am aussi mooy li nu man événementiel la man mag laa mais sama doom laa di jiital moom mooy nekk directeur société bi ndaw la ñu ngi fii taxaw am na ni partenaires yi aussi turc ñëw nañ ci convention bi architecte bi ko defal mi nii sama gannaaw parce que moom moom itam on ñi ngi liggéey moom muy kanc moom teesam foofu la ko def ci monument bii la def teesam ça veut dire que ni au moins que ni am nan ay atu yoo xam ne yaakaar na ni buñ ci jubloo daan ci am ngëneel daan ci am dam du caagee ni nag ñun ñëpp ñun sénégalais la dina ñaakaan itam pour devenir Sénégal moo tax ñu jëm xam nañ place bi itam li mu représenté ci senegal du putu xaalis rek moo ñu si am na yeneen yitte yoo xam ne itam bu ñu sañoon lii ñu ko confié ñu dénk ñu ko ñu gis ci ndam ñoom ñu ko gis itam duñ am ci déception ñi ñu ko joxoon loolu mooy sunu euh, li tax ñu jóg li tax aussi ñu dugg ci. ci ndigalu Ablaye Seydou Sow muy ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique tey ci suba direction général cadre de vie ak hygiène publique bi nga xamante ne maa ko jiite xaatim na benn. convention avec euh, ay partenaires partenaire que ñu koy tuddee 3S Etamine, nous nga xamante ne moom yëngu-yëngam ci loolu la jëm donc bu ñu xoolee place bi bi ko état de réhabilité ba léegi gestion bi posé na problème comme mën nañu utiliser ay privé ci cadre benn partenariat pour gën ko jëmmal ci loolu la ñu xalaat 3S Etamine mën nañ def benn partenariat ak nous pour ñu ñëw place bi réhabilité ko defaraat yi nga xamante ne commencé commencé na ci yàqu waaye tamit jox ko population yi ñu mën ko jëfandikoo xale yi mën a am fu ñu xamante ne fa la ñuy tàggatoo seen yaram mais également njaboot yi am week-end bu nekk wala ay jours dem ak seen i xale am ay espace yi nga xamante ne xale yi mën nañ fa fo mag yi mën nañ fa féexlu ba nga xamante ne dina bokk ci li nga xamante ne moom mooy gën a jëmmal euh, dëkkuwaay donc loolu moo tax ñu dénk ko ko di leen xamal ne également dénk boobu

pour que gën a dooleel euh, dëkkuwaay nit ñi ñu gën leen may ay espaces yi nga xamante ne dañ fa mën a doxantu gën a aaral vraiment quartier yi ak gox goxaay